war nañ ko mën a def mais lépp lu jëm ci compromission ci euh, ndodd sénégalais yi gëm naa ne loolu. Euh, kenn ci sénégalais du ci ànd. exactement balaa nuy tëj li nga xam ne nag mooy libération des détenus politiques yi dafa am euh, benn benn xibaar bu nu bu envoyé léegi nu ñuy xamal pour ceux qui connaissent des détenus politiques qui ont été libérés récemment veuillez dire de venir à la clinique suma assistance de Cité góor gi pour faire une consultation avec un médecin généraliste et une radio et suivi d'un euh, par un pour cela tout est gratuit euh, pour eux il faut juste qu'ils soient munis de leur pièce d'identité et leur certificat d'élargissement signé par le directeur de la prison de la part de docteur docteur euh, Babacar Niang directeur général de SUMA. docteur Niang gis nga engagement bi mu am wala accompagnement bu mu fas yéene amal ñii di way détenu politique yi. donc képp koo xam ni da ngaa xam benn détenu politique nu libéré ko démb wala barki démb. Mm-hmm. na ko informé na dem fële ca cité kër góor gi euh, ci li nga xam ni moo di SUMA assistance. pour amal fa benn consultation générale waaye aussi benn rajo boo xam ni euh, benn psychologue moom moo leen koy mën a amal te loolu bu ñu koy def yëpp c'est gratuit. Mm-hmm. alors donc Thioune gis nga. accompagnement bi nga xam ni euh, ñu ngi koy fas yéene amal wala suivi si wér gu yaram ñi nga xam ne naka ñoom nañu libéré naka démb barki démb si prison yi et je pense bien que lii aussi doon na pas boo xam ne c'est très important. c'est très important parce que dafa am lu ñuy si psychose mentale. Uh-huh. Euh, quand vous êtes en prison wala nga nekk si yenn situation. euh, difficile, surtout carcérale. Euh, des fois au-delà même de cette restriction de liberté euh, condition de vie bi dafay nekk euh, jafe-jafe. en plus euh, li nga xamante ni tey ñu bëri tey dem nañ fa mosuñoo xalaat ne dañu fay dugg surtout bu ñu fa demee aussi mais euh, xam nañu le cadre de vie est différent de celui qui est au dehors donc automatiquement tu es affecté yàlla boo def aussi nga mu leer na ni yow yow dañ la fi indi mais loo dara ah. donc yow yow même si tu essaies d'être fort mentalement tu affecté donc kooku mënoo ko euh, génnee prison rek au-delà de l'élargissement bi nga def nga ne ko oui demal dellu sa kër mais après cela moom am na loo xam ne da ko war ak moom xam nga ñun Sénégal on néglige ko euh, lu ñu tuddee ay consultation uh-huh. tubaab même bu la dara dotulee dinañ la xool ndax yow dara ndax amoo problème mind sa sa sa bopp uh-huh. surtout ngay jékki-jékki di absenté dangay ngay dem obligatoirement ñu defal la consultant ñu xam ne sëriñ bi yow lan mooy sa problème. parce que mën nga am angoisse mën nga am stress alors que loolu naturel y a des dafa am lu koy choqué lu koy provoqué. donc surtout tu sors fraîchement de prison da ngay gis ñoo xamante des jeunes mais on les braque une caméra mais tu les tu les regardes tu sens que yii ils sont absents. c'est-à-dire que man j'ai vu quelqu'un même ñu invité ko mais ñu koy poser question mu sa tontu parce qu'il est tellement jeune uh-huh. il n'a même pas les réponses aux questions qui lui sont posées uh-huh. donc je bien ñooñu nga ñëw teg ko beneen coono uh-huh. mais kooku atu atanul loolu donc boo amee tey koo xam ne dafay jóg ne leen kaay la ñuy leen consultation parce que l'objectif de la consultation c'est aujourd'hui pour voir ñooñu génn est-ce que amuñu ay séquelles parce que am na koo xam ne bu génnee le le azura bi nga gis muy dox azura xam nga man bon man j'ai l'habitude de de couvrir les événements de de Ousmane Sonko à chaque fois. da uh-huh. doon yeewu fajar mais moom laa doon gis mu yore drapeau bi. Uh-huh. kooku boo ko xamee da xam ne kii physiquement. ku uh-huh. taxaw la. mais man bu ma ko gisee il marché boi en pas boiteux. maanaam da doon sox di dox. après danga naan est-ce que ki ma xamoon mu yore drapeau bi. est-ce que parce que même quand yaa y a ce qu'on appelle. Euh, la dispersion de la foule bi ànd ak son Sonko. moom il est toujours derrière. et drapeau da koy gis ci kaw. Uh-huh. donc tous les photographes yi jël image boo gisee benn imam mu jël drapeau da xam ne moom moo ko yore. donc kooku mu nga gis ko muy génn prison pas muy am troisième pied pour mu dox. ça veut dire qu'il y a un donc soit il est malade. wala <laughs> les conditions de de détention ne sont pas idoines et aussi xam nañ le monde carcéral sénégalais c'est pas c'est pas du pain sur une table pour nga ñëw ah. lekk ah c'est pas facile donc boo fa demulee mais ñu fa dem bu ñu la wax ne di nga xam lu mu demee ah. alors maintenant ce qu'il faut euh, saluer c'est l'acte de docteur euh, docteur Niang Euh, c'était pas évident parce que bu ko neexee du ko def il y a rien que lui contraint à le faire il le fait c'est salutaire comme ñeneen ñi également am nañ possibilité def ko bu ñu ko defee aussi dañuy rafetlu et j'ai vu un autre également qui fait un peu la même chose parce que dafa am benn élève nee na da doon dem je pas seconde euh, finalement jàngul euh, kooku mu ne ñëpp ñi nga xam ne dañ doon jàng ñu am problème ndax lu ñu leen tëj mhm. ñooñu nañuy signalé wu après dinañ leen jàppale et mhm. il a que am na une école qui a offert euh, dix euh, places. à mhm. ces jeunes là pour ñu mën leen joxaat chance ñu duggaat école parce que aduna aussi comme ça mm-hmm. c'est-à-dire que ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi mm-hmm. il ne faut nga isoler leen mm-hmm. nit mën na dem kaso pas parce que dafa bon même bu fekkee da nga dem kaso des fois juum léegi juum boobu est-ce war a génn kaso et ñu ñu la comme quoi non kii baaxul parce que dafa dem kaso même prison n'a rien à voir baax ak jub parce que am na koo xamante dañ koo tooñ yóbbu ko fa am koo xamante ni dem na pas parce que da koo bëgg mais dafa dafa juum am koo yàlla moo ko nattu donc dans tous les deux trois da ngay fexe ba ku nekk bu génnee nga fexe nga xool noo koy réinsérer moo tax bu dee ci yenn réew yi ñun am nañ ko sax mais dañ la defal la réinsertion sociale donc dafay tax kooku génn mu bañ a nekk sentir koo xam ne dañ ko isolé mhm. parce que l'isolement aussi peut créer une autre source de d'infraction mhm. criminelle ou correctionnelle exactement moom moo réinsertion sociale boobu est-ce que am na loo ci bëgg sànni waaye aussi nu gis euh, naka sa buntu rëbës moom daanaka patriote taxaw sa njaboot gis nga aussi acte bi euh, docteur Niang euh, def euh, am na loo si mën a loo si loo si sànni. élan élan de solidarité bi ñu ngi koy gis. Mhm. exemple bi Thioune di joxe léegi bu docteur Niang ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. Mhm. ci réseau bi da ngay gis da ngay gis sax borom oto boo xam ne gis naa ko dafa. ci guddi gi dafa dem rëbës joxe numéro am publier ko sur le net di wax ne képp ku ñu bàyyi ak foo mën a dëkk moom dina dina engagé wu. pour yóbbu la ba fi nga dëkk ci guddi gi. donc élan de solidarité boobu pour man euh, lu ñuy lu ñuy rafetlu la yàggul dara avant lii di xew rek. Mhm. ci ay détenus am na ci kenn koo xamante ne nii euh, benn journaliste bu ma xam mu ngi ma doon euh, wax ne am na ci kenn koo xam ne daal li ma ko gisee nii sañu maa wax ne wérut waaye. réaction yi mu am ba ci kanamu juge bi. <laughs> dafay jaaxle quoi da ngay sentir ne kii ça va pas. <laughs> non loolu pour man. <laughs> problème la boo xamante ne nii euh, peut-être docteur Niang bu demee bay def li peut-être comprendre na euh, situation bi nga xam ne nii parce que nit ñëpp xëy na yamuñu. Euh, am na ñoo xam ne choc boobu bu leen dalee mën na am lu mu lu mu jur ci ñoom. Uh-huh. et pour man c'est c'est une bonne chose tey ñu mun a am benn accompagnement réinsertion gis nga man dama jàpp ne. Euh, li ma gën a jàngat sax ci euh, détenu politique yi. cest à boo xoolee ñi ñi ñu jàppoon ñëpp yow da nga da nga naan dëkk bi est-ce que nekkul la crème la ñu jàppoon ñoom ñëpp dëxëñ leen ci benn kaso quoi. Uh-huh. ci dëkk boo xam ne yow da bëgg développement tey yi nga gis jeunes yi ñi entrepreneur lañ ku ci nekk rek ñi ci bëri ñi ci ëpp bokk ku ci nekk am na ci liggéey boo newoon di ci di ci bay sawar. Uh-huh. et que nga am loo fa doon apporter. léegi imagine ces jeunes là nga jël leen tëj leen quelque part quoi tëj isolé ab ñoom ñoo war a doxal réew ñi si ëpp du ñu duñu duñu c'est pas des gens violents duñu ay duñu ay sàcc. Uh-huh. duñu ay ay agresseurs. c'est-à-dire c'est des gens yoo xamante ne peut-être mérité wuñu woon xeetu euh, traitement bi mais li ëpp solo euh, moom mooy euh, tey jii tooñ bi am na ba pare. Uh-huh. te pour man loolu mooy li may wax sànq il faut que mbir mii ñu teg ko ci yoon parce que pour man impunité dafay dafay favoriser pour beneen yoonee xëy na pour man. Euh, képp koo xam ne posé nga benn acte moo xam torture la moo xam euh, jàpp gu ñu jàpp nit ci lu tegul ci yoon wala yeneen ak yeneen. Uh-huh. pour man waroon ñu teg ko ci yoon ba bu ëllëgee keneen ku amaat responsabilité boobu dina ko servir d'exemple ba du sañate yenn acte yi. donc euh, c'est c'est vraiment important. remercier bu baax képp koo xam ne yaa ngi teg acte boo xamante ne ni lañ ci jublu rek. Uh-huh. mooy xeetu solidarité et da nga koy gis souvent te jàpp naa ne loolu la ñu war a mën a rafetlu la. exactement loolu c'est très important.